ci ñaareelu pàcc bi lay doon kilifa gi dara jàmm Moustapha Dia. aleykum salaam maa ngi di nuyu di leen ah, nuyu mbooloom seen i téléspectateur mhm. am mbégte teew ci loolu. ana waa Ndar. ñoo fa ñoo ngi nuyu. Mhm. Mhm. ñu ngi wax ah, sànq ne lim bu jéggi dayu nekk nañ ko ci ay ah, nappkat ñu ñàkk seen bakken ca Ndar ndax mën nga ñu jox xayma bi. waaw 2003 ak léegi waxuma li jiitu 2003 mais 2003 bi ñu ubbee brèche bi. li nga xam ni moom la wax nii. Euh, bi maanaam tali defee ses première lâchers ndox mi ñëw ñu ragal ni Saint-Louis atteindre na la côte d'alerte et que suñu deful dara Saint-Louis dana disparaître hmm. ñu dem dagg benn point bi gën a baax ci Langue de Barbarie point boobu 4 mètres la ñu daggoon 4 hmm. mètres yi moo yokk ba tey nekk ay plus de 8 kilomètres mais ci biir diggante bi 2003 ak léegi quatre cent douze pêcheurs ñoo fa décédé woon hmm. mais barki dem rek campagne bi dooragul trois pêcheurs yokk nañ si muy quatre cent quinze pêcheurs yoo xam ni embouchure bi 2003 ak léegi dee nañu si bële. alors mu nekk lim boo xam ne euh, jéggi na dayo waaye matuwaay yi ñu war a jël ci euh, wàllu kaaraange est que euh, nappkat yaa ngi koy jëfe matukaay nappkat yaa ngi koy jëfe preuve bi gën a wóor ni nappkat yi ñoo ngi koy jëfe moo di société Sénégal bi mu commencé subventionner les gilets de yàggul mm. doon nañu ko jaay quinze mille mu jigi ñu ko jaayee dix mille gouvernement bi indi ko ba deux mille cinq cent mais bi ñu ko indi deux mille cinq cent euh, pêcheurs yi dañu constaté ni qualité bi baaxul bi ñu subventionné woon alors pêcheurs yi dañ doon jóge fii Saint-Louis dem Nouakchott mm. jëndi gilet qualité bu baax a onze mille francs mais est-ce ngeen ko wax ministre bi ñun ñoo ko wax ba tax bi Oumar Gueye ñëwee bi ñuy def revue pour mettre en place la politique sectorielle bi ñu ñëwee Saint-Louis si lañ leen wax ni qualité gilet yi baaxul non seulement baaxul mais dafa nekkoon benn taille unique pour tous les pêcheurs ki am cinquante kilos ki am vingt kilos ki am cent kilos alors que lii porté cent kilos du porte cinquante kilos. dafa war a am pour yaaw jàll. dafa war a très bien loolu nag amul dañuy dañu woon rek ay taille standard yoo xam ni. am nay pêcheurs dañu digaale ak gilet bi dig am accident gilet ñu doon jaay exemple bi si gën a kii à la télévision la ñu ko wane en direct y y avait un accident au niveau de Thiaroye le capitaine de la pirogue a perdu cette dafa ñàkk ñetti moolam moom en direct moo wax nan la gisee mool yi ñu diig ak seen i gilet mais diig ak gilet est-ce que aajana gilet bu baax ak gilet bu bon parce que ku diig ak gilet c'est-à-dire fi nga nekk circonstance yi moo extraordinaire ba nga xamante ni mm. kenn mënu ci dara xootaay bi ci wàllu brèche bi xootaay bi ci suuf est-ce que nekkul foofu tamit war lañ euh, li ëpp doole ci mesures yi nga xam ne moom lañu war a jël ngir saafara ko foofu la war a jëm d'abord. bu gisee ñuy wax gilet. gilet c'est vrai que du du du du du gilet rek. Mm. mooy mesure de sécurité. mesure de sécurité commencé wul ci gilet jeexawul ci gilet mais en attendant les secours yow mi nga xam yaa ngi sol gilet bi daf lay permettre ngay flotter ngay am flottaison même soo sonnee soo deful benn mouvement mën nga toog au-dessus de l'eau nga toog nii. doo def benn mouvement ngay flotter conditions climatiques yi bu melee yenn façon yi di nga mën def loolu. ko mën di nga ko mën mais c'est que comme ni nga wax dafa am yu bare yoo xam ni daf si war a ànd parce que embouchure bi liy indi accident bi te ñu koy wax di ko répéter boobu ba léegi. daaw au niveau de l'UNAPAS au de Saint-Louis il y avait une a une organisation bu ñuy wax UNAPAS. qui regroupe tous les pêcheurs en activité de Saint-Louis jusqu'à Kafountine. mais organiser nañ fi une marche extraordinaire boo xam kenn mës ko gis. Mm. gauche yëpp génn di manifester pour ñu defar bël bi ñu doon manifester même pas une semaine am na si ñoo xam ne parmi am na suñu dig si bël bi euh, ren organiser nañu benn point de presse boo xam ni tous les pêcheurs de Saint-Louis euh, Mbour Joal. ñoo ko defandoo à un jour. mais mais mais pour pour schématiser sama mbokki saalum saalum yi nga xam ne ñoom xamuñu par exemple bël bi fu mu nekk boo koy situé. est ce que fan la nekk et itam fan nekk ndax mu ne su koo wër ba bañ bañ faa jaar. bël bi fi mu nekk diggante fan fan. fi mu nekk soo jëlee langue de bari hmm. xam nga soo jëlee quartier bu mel ne Gendar. Hmm. sanc ba goxu Mbaaj. langue de Barbarie motul sax 4 kilomètres si limitu langue de bari fa fi Langue de Barbarie jeexee maanaam hydrobase pour ñu xam hydrobase soo jógee hydrobase nga continuer da ngay dem àgg fu ñuy wax aire marine protégée aire marine protégée bi embouchure bi moo si topp moo def en face le village de Doune Baba Dieye Doune Baba Dieye village la boo xam ni bël bi daf ko mujj mu ngi commencé renaître sax gaa xam nga bël bi fu mu dépassé fu mu dépassé day day avancer avancé xottiwaat leneen mais li si gannaawam daf koy sëkkaat daf koy engraissé waat daf koy sëkkaat donc Dunbaaba yi mi ngi sukkuwaat mais dafa demoon ba disparaître complètement donc mi ngi nekk juste rek mën ngeen en face Dunbaaba Dieye ak limitu quartier hydrobase. yoon woowu moom kenn mënu ko faa wàcc jaari weneen. fi ñu toll nii amul beneen yoon bu ñu mën a jaar am na am na façon nappin yoo xam mën nañ ko parce que Guet-Ndar dafa bari ay façon napp. Mm. am na gaal yu ndaw gaal yu ndaw yi mën nañu départ si géej gi teer si géej gi. mais gaal yu mag yi gaal yi nga xam ne ñooy napp yaabooy di napp jey yore ay mbaal ay filature yoo xam benn mbaal day nekk 800 mètres 1 kilomètre benn mbaal gaal gi day nekk gaal goo xam day mat vingt mètres 21 mètres di def cinquante pêcheurs et plus kooku mënul jaar si booru géej gi mënul fa départ mënul fa teer foog si bël bi rek lay jaar obligatoirement. alors bël boobu bi ñu koy tijji 2003 dafa nekkoon requête boo xamante ni acteurs yëpp si waxtaanoon ne loolooy solution bi wala déet. déedéet lu bettee la loo xam ni gouvernement bi sax deful étude parce que dañu yeewu suba rek euh, Saint-Louis di bëgg dig maanaam ndox mi atteindre li ñuy wax la cote d'alerte mm-hmm. fi nga xam ne mënu ko weesu su ko weesoo place ba dafay nekk sous les eaux mm-hmm. euh, président Ablaye Wade daal di alerte wuti benn expert marocain ñu ñëw parce que ñoom yaakaar nañu c'était la meilleure c'était la solution. Mm-hmm. parce que y avait y avait deux jours il fallait en l'espace de deux jours trouver une solution ñaari fan dañu war a am solution si ñaari fan xëy na nag li waral loolu mooy que dafa am lu ko giitu parce que en deux deux mi deux mille bi nga xamee ne Manan Tali pare na pare na euh, yi ñu ba jëkk ndox mi mu jëkk indi ndox moomu moo dugal boppam si Lac de Guiers mais ndox moomu moo demal boppam jusqu'à sept kilomètres de Linguère ndox mi demal na boppam ba sept kilomètres de Linguère lu tax si vallée fossile yi kii rek la jaar xur yu jëkk yi fa nekkoon nga xam ne li ñuy wax ndox du bàyyi yoonam ba ndox ma ñëwee dafa jaaral si yoon wi dem ba sept kilomètres Linguère mais Mauritanie daal di daal di daal di yuuxu alerte Sénégal yëpp ñu génne la ñu génne Sénégal yi Abdoulaye Wade dem négocier ji xëy na loolu moo tax bi yoon bi situation ba présenté woo explorer jéemul jéemul fexe pour tijji canal du Kayor su tijji woon canal du Kayor ndox mi du yàq du yàq saint su su tijji woon côté Linguère ndox mi du yàq saint mais xëy na Mauritaniens yi la ba ñoon ñu am lu leen naqadi ndax Sénégal jëloon na engagement nanguwuñu jël ndox mi jaarale ko fi ñu ko war a jaarale. bu ubbi woon canal du Kayor fan la ndox mi di jëm. dana ñëw côté Tivaouane dana dem côté Linguère nee naa la bi ñu ubbee en mille hmm. kenn deful benn aménagement. ndox mi moo yóbbu boppam ba sept kilomètres de Linguère. Hmm. mais est-ce que waa OMVS tamitam ci projet bi ñoom bi ñuy gas euh, ci euh, manantali boobu barrage bi ñoom defoon nañ ay études pour prévoir effectivement conséquence waaw étude d'impact ci conséquences yi nga xam ni li ñuy def mën na koo jur ay scénario scénario yu positif ak ay scénario négatif ñaari kaay yëpp extrême mais je crois que OMVS def nañ ko lu tax parce que quand même kenn du ko liggéey pour irriguer une ñun la nangamu hectare nga war a maanaam deux cent quarante mille hectares nga war a ndox mi ñëw dugaloo ko ci deux cent quarante mille hectares yooyu kon respecté la nga waxoon toppatoo ko. loolu OMVS la ba léegi. OMVS la. Sénégal la. parce que Sénégal quand même parti parti bi nga xam ne moo concerné Sénégal. Mm-hmm. su Mauritanie waxee nii. amu leen droit utiliser si ndox mi lu ëpp li ngeen am droit. ndax dex ndax dex gi dañ ko bokk. ku nekk da nga si am wàll. Sénégal dafa war a jël juste li mu moom mais Mauritanie pareegul pour jël li mu moom te Sénégal su ko jëlul ndox mi dana ñëw ndar dana fa def ay dégâts. dana dugg si géej gi ndox du pour géej ndox mu neex du pour géej ndox mu neex du pour géej suñu suñu autorités yi ñoo waroon am sañ-sañ foofu ndox mi dugal ko fañ ko war a dugal. mu dem si tool yi mais barrage bi dañu dañ koy dañ koy ubbi chaque année dañ koy yëkkati waaw nga tabax barrage ba pare at mu ne nga yëkkati ko ndox mu neex mi dem dem dem ndar soobu si géej gi toj ay kër indil nit ñi ay jafe-jafe. léegi brèche bi nga xamante ne nii euh, tijji nañ ko autorité yi waxoon nañ ne dinañ ci jël ay matuwaay. waxoon nañ ci projet dragage ak euh, balisage bi nga xamante ne ministre Oumar Gueye euh, su ma juumul juillet 2018. Mm. waxoon na sax ne liggéey léegi mu door lan fan la toll si Oumar Gueye dafa ñëw ànd ak waa ministère mi yëpp ànd ak euh, madame Tické Ndiaye mi nekkoon directrice su ANAM te nekk léegi di suñu xarit di suñu soppe ñoo koy gërëm di ko sax ndax liggéey na lu bare si ministère la pêche mais Ndeye Tické Ndiaye Oumar Gueye indi benn société bu ñu wax ni moom Afrique moo fi mën si dragage mm. ñu teg ay chemin wax ni ñetti weer dinañ ko liggéey ñu fàtte problème bi ba élection yu passé ak léegi waxatuñu lu si jëm. promesse de campagne daal nga promesse de campagne la woon. parce que su fekkoon ni élection yi dafa passé ñu jëm si dara. mais dañ say jéemul dara te fekk na avant loolu fekk na déjà en deux 2004 en deux en 2014 en 2014. Mm. Macky Sall santaane woon na ay études avec des hollandais ay hollandais. ay hollandais ñëw fii kon loolu hollandais étudier woon mu entre deux mille 2004 ba mille 2018 kenn defu si dara 2018 bi ñu nee ñetti weer lañ leen may daañu ko defar ñetti weer yi ak booba ak léegi jéemuñu si dara. est-ce que yéen a ngi rapproché wu ministère pour xool fan lañ toll ñoom si jéego yooyu. mais ñun yemuñu si rapproché rek déggoo man la le 11 septembre bii passé UNAPAS Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal dañu ni bël bi du problème mu waa Ndar kese bël bi problème Sénégal yëpp la. parce que gaalu gaalu Kafountine dafa am droit ñëw napp si Ndar gaalu Kayaar dafa am droit ñëw napp si Ndar sama mbokku Kayaar yi dañuy wax ni ñoom dañuy jóge Kayaar ñëw di napp si ba tollu Saint-Louis euh, jàpp ñu jën au lieu ñu teer Ndar waajaat jëlaat essence suba ñu nappiwaat du ñu ko ñeme du ñu ñeme dugg si bël bi dañuy wëññeekuwaat ba Kayaar perte essence perte temps su ëllëgee ñu ñëwaat ñu ni kon problème bi problème mu mool yu Sénégal yépp la léegi Saint-Louis Fass Boy Gandiol Kayar Mbour yëpp le même jour ñu def point de presse. appeler le gouvernement à respecter ses engagements wax que ni que 412 personnes ay xale yu tuuti nekk en âge de travailler yor seen waa kër te it nekk la première source de devise pour le Sénégal ndax napp mooy première source de devise du Sénégal euh, depuis combien d'années depuis plus de dix ans moo ko tourisme ñoo doon balancé. léegi ñoo ngi wax or bi ana or bi ko ko gis mais mool bi gaal gi nga xam ni ça crée un million d' un million d' emploi deux cent quarante milliards de devises quatre cent vingt mille tonnes jën soo jëlee pêche industrielle gis pêche artisanale pêche industrielle bi ñuy xeeb dana indi soixante dix fois lépp lu ñuy produire ci Sénégal téeméer bu nekk soixante dix yi pêche artisanale moo koy produire. te lu bés at mu nekk lu mat 40 day si ñëw at mu nekk lu mat 40 ay xale yu tuuti yu nekk seen yaakaaru waajur nekk yaakaar réew mi di créer emploi ci ci ci question aram bi ba léegi nee na est-ce que rapproché wu ngeen ci euh, kilifa yi mais bi ngeen mujjee dem ni leen tegoon loon ngeen ñu wax joo xamante ne ni digge la woon ngeen waroon ñoo indil euh, dragage bi ñëwul lan lañ leen tontu ni moo ko tar leen mais luñ la luñ la tontu dara parce dañu bind mémorandum bi ñuy def marche bi daaw jeeg à Saint-Louis dañu bind mémorandum adressé ko président de la république def marche marche bu jaaxal ñëpp góor mag jigéen xale kenn desul ñu ñëw ba ci gouverneur jox ko ko ci bureau xamal ko ni ko dañu bëgg sawee suñu bakkan ndax ñun amuñu beneen pexe suñu xelal jànguñu leneen lu dul napp duñu sàcc duñu fen duñu def dara suñu juddoo la ñuy commencé seen gaal parce que amul amul école bu ñu jàng pêche artisanale ci seen gaalu waajur lañ koy jànge ñu commencé ñu dem ba si gouverneur yëkkati mémorandum bi jox ko mais mémorandum ba ba fi ñuy tollu tey amul to amul tontu amul suite. mais mais maire bi que yéen yoru leen maire boo xam ni dafa bokk ci maire yi cate. Mhm. kàddoom mënul yéen seen maire moom daanaka lu ko neex mën na koo def moom yaacaaral gi mu ci yaacaaral nii nu nu mu demee noonu. mais lii nga xam ni campagne de promesse bii si maire bi la jëkkee woon. maire bi bu mu bëggee falu maire. Mm-hmm, mm-hmm. ba mu jëkkee bëggee jëkk falu maire bi mu ñëwee nit ñi xamuñu ko mu bëgg falu maire Ahmed Fall Braye nekk opposé ko indil ko jafe-jafe à Saint-Louis li ñu naxee population yi maire bi dafa ñëw jëli ay booy dem ser ko ni li liggéey bi dafa tàmbali ni liggéey bi dafa tàmbali. nit ñi gëm ne liggéey bi day tàmbale ñu ne kii góor Macky Sall la maire la lu mu wax la dëgg la. Ah, leen liggéey bi day tàmbale amul këyit amul firnde ngeen gis ay. nit ñi gëm ko indi ay booy dañu yaakaar ne xanaa nit nag. Hmm. nit nag say citoyen nag. ay bakkan ay bakkan kenn du ko fooyee. li ngeen gëm lu nit war a mën a gëm la kilifa gu toll ni moom waaw du du question du ay naxante ak ay mu leen di kii waaye ni mu jegee Macky Sall. yaakaaroon nañ ni ak soxla gi mu soxla maire bi bu ci jotee li doon seen jafe-jafe bi nga xam ne moo ëppal njëriñ waa réew mi yëpp. ak euh, gox ba di bakkan yi nga xam ne moo fay rot waroon naa mën a jeex ba fi mu ne nii mais. parce que fi ne nii li nga wax ni jur na ñàkk yaakaar goo xam ni kenn xamul fi mu ne nii nag euh, fan lay yem te li ci wéy di ci faatu mënul continuer. su dee su ñun la départ ah euh, ñun gisuñu solution suñu amoon lu koy saafara dinañ ko saafara. nekk solution moo tax ba léegi da ngeen di continuer di dugg. dañuy dugg dañuy dugg. mooy mooy seen yéen xale yi duñu toog mënuñu mënuñu ñooy dundal seen ndey ñooy dundal seen baay soo seetoon tey Sénégal nga wax le plus jeune entrepreneur si pêcheurs yi nga koy fekk mais ñun nous avons vingt mille pirogues au Sénégal chaque pirogue est une entreprise. pirogue yi ñu yi ñu immatriculé. immatriculé immatriculé waxuma yi ñu immatriculé wul. Hmm. vingt mille pirogues officiellement euh, immatriculé pirogue bu nekk entreprise la. nga jël entreprise yu ndaw yi les gaal yu ndaw yi nga xam ne cinq cinq en plois permanents lay créer yooyu ay xale yu dix huit ans dix neuf ans ñoo koy moom ñoo koy créer ci seen doole liggéey cinq ans jënd gaal jënd machine jël ñeneen ñu ànd ak yow di liggéey. ñi nga xam ni tey ñàkk nañu seen bakkan yoroon matériel bi di dundal ay nit yooyu nga wax conséquence yi tey ci seen famille njàppale gi fan lay jóge yéen yi yéen ay jàpp wala état bi mu ngi ciy def effort wala. ñun ñun naturellement soo ñëwee Gendar. soo ñëwee si pêche bi yëpp mool bi loolu si napp rek la amul feneen mool bi bala muy lekk day maye loolu moo tax soo ñëwee Guet Ndar dafa am lu ñuy wax impôt social impôt sociale ki ki nekkoon mag di liggéey mm. ba tey liggéeyatul mm. dafa am sañ-sañ boo xam bés bu nekk su ñëwee taxaw si gaal yi dañu yëkkati wàllam jox ko. comme paawu coxeur yi rek ci oto yi. comme paawu coxeur yi si oto yi. te defe naa sax fee moo gën a kii ndax fee paa yi rek ngay wax mais fee paa yi jigéen ñi maire yi da ngay gis koo xam ni njabootam dee mais day ngàbbu siwoom le matin mu ñëw si gaal yi bala muy dem dana fa jëlee ndawal dana fa jëlee dépense. mais euh... mais état ñaari dërëmu état bi man la la plus grande catastrophe de l'histoire de la pêche catastrophe bi gën a rëy si napp le 23 mars 2013 la am à Saint-Louis le 23 mars 2013 benn bés ñu ramassé lu ëpp fanweer ak juróomi bakkan yu dee benn bés benn bés. ñooñu ba ñu defee délégation seen i mbokk yi dem sa Macky Sall dimbali na leen jox na leen 10 millions. pour fanweer yëpp et pour fanweer ak yi cinq fanweer ak juróom yi fanweer ak juróomi bakkan matériel bi ñu xayma si bis boobu ni ñàkk nañ ko dana jege un milliard ndax benn mbaal rek benn mbaal rek soo jëlee mbaal mi ñaari gaal yi muy àndal hmm. ñetti machine yi muy àndal da ngay dem plus de 60 millions. benn mbaal. mais pour ñu pour ñu continuer ci waxtaan yi par exemple euh, bi fi Macky mu jee ñëw ànd ak président France ak euh, waa banque mondiale yi. ñu ñëw indiloon nañ leen xaalis bu bëri pour euh, fonds climat vert bi ak ndox mi ni mu doon nangoo dëkk bi est-ce que par exemple mbiri bël bi waxaale woon nañ ko ci ba ci xaalis boobu ñu waroon ko ci saafara wala déet bokk ci woon. bokk ci woon. Hmm. waxuñu seen waxu bël bi. Hmm. waxu ñi nga xam ni géej gi daaneeloon na seen kër ñu waroon leen saafara. te ñooñu ñoo gën a sonn tey ci Sénégal. doomu aadama yooyu dund nañu lu metti loo xam ne kenn yéenewu ko sa mbokk ndax bi géej gi daal seen kër dañ leen yóbbu dugal si ay barak ay ay ay ay ay bâche. xaar yàlla xaar yàlla Sénégal yi xam nañ ko amul amul catastrophe bu gën a bu gën a rëy bu gën a metti population yi muñ ko ñetti ba ñeenti ñu jëlee leen fii ñu yaakaaroon ni xëy na loolu nga xam ni joxe nañ ko xaalis bu bare dañuy dagg kenn ku nekk benn titre foncier. yëkkati 10 millions jox la ñu hmm. la wutil maçon tabaxal génnal fii nga nekk demal yoretuñu la dara jox nañ la terrain titre foncier jox nañ la xaalis mais ñu leen déedéet dañ leen di yóbbu parquet waat leen si ay ay yeneen yeneen genre tente améliorée. mais ay bâche la ay bâche améliorée mais ay bâche la ñu dugalaat leen fa si tàngaay bi si métti métti bi ni leen da ngeen di xaar fi léegi ñetti at. daañu leen tabaxal tabax yi fi la ñetti at lay pare encore. mais xaar yàlla ñi fa njëkkoon nekk te Cheikh Bamba Dièye njëkkoon leen installé am na suñu ñu ngi fa ba léegi. ñu fa jëkk ñu fa jëkkoon nekk ñoo ñooñu ñoo amoon chance su fekk mu benn projet boo xam ne tabaxoon nañu fay kër ñooñu ñoo fa. ñëpp amuñu ñëpp amuñu si ñu néew ñoo si am te même ñooñu bañ leen ko joxee teg nañ leen yu métti ndax imagine toi kër goo xam ne tabax nañ ko ba pare amul toilette ñu jox la ko ni la mais bul fi def toilette kër goo xam te wax nañ ko ba mu pare bi nekk moins de ñu la bul yëkkati bul fi changé dara toogal rek parce que c'est mm. nga dem wuti ndox Senelec nga dem wuti ndox Sones ñu la moomuloo kër gi amoo droit dugal fi ndox nga dem wuti courant Senelec ñu la moomuloo kër gi amoo droit dugal fi courant mais situation yi su ko nit ay vivre nit ay nit dundee te di ay sénégalais banque mondiale ñëw euh, Macron ñëw ñu ni yëkkati nañu alal ju dul jeex jox nañu ko si seen tur nit ñi dañuy dañuy jaaxle jaaxle dañuy jaaxle. mais euh, léegi euh, parce que nax yi mi ngi bëgg a yàgg mi ngi bëgg a metti tray bi jekkadi na te lii itam mënut a loo yaakaar ne moo ci saafara ngir mu dakk nag. loolu moom su ma ko laajee da ngay laaj nag geel ma hmm. xanaa ñu xam ne ñun si Sénégal lañu bokk. ñun ñu xam ne ñun bokkuñ bokkuñu si ñu ñàkk fayda parce que ñun dañuy wuti te li ñuy wuti li si gën a bare dañuy sax génn territoire Sénégal di ko wuti yeneen réew ñun dañuy jënd chaque année dañuy jënd 500 licences Mauritanie pour rek indi lu ñu dugal Sénégal dañuy jënd Guinée Bissau ay licences ñëw di ko teer fii di ko dugal Sénégal du yokk alalu Sénégal mais loolu yëpp ñun suñu koy def si réew mi war nañu am respect ak considération si suñuy autorité suñuy kilifa ñoo fii suñu kilifa ñoom la fi yàlla teg nagul nañ leen ko mais population nappkat bu mel nii amul si monde bi Sénégal dafa am lu nga xam daf ko sàggane te xamu ko daf ko sàgganee ndax lii amul si baykat yi amul si sàmm yi lii napp gi di jariñ réew mi baykat mënu ko sàmm mënu hmm, baykat yi jàmbar lañ de baykat yi hmm. dinañ ñëwaat dinañ soo joxoon baykat tey soo joxoon baykat tey 10 millions 10 millions hmm. soo ko joxoon baykat ñaari emploi lay créé moom moom ak doom